ma jigéen nag dama laa tàmmut ci sama ndeyjoor bi waaw xam nga man defe naa ni ba takku show di takku show ba léegi tey laa mosu nuyoo. neew ma alaaji noo def wallaahi waaw lu raar nag. ayca Omar kaddu gaa ngoog. <laughs> nii noonu kon euh, Seydina Aline Fall président livreur càq-càq du Sénégal euh, waxtaan bi rek dañ koy dooree ak mesure yi ministre de l' bu ñu ko waxee gouverneur moo tax ñuy wax. Euh, jël à chaque fois bu ay événement amee mooy euh, li jëm seen wàllu liberté de circuler ñu xañ leen ko daal jël ab arrêté bind ko na toog leen léegi euh, bu ci mujj mooy démb ñu dem ba ca ngoon nga ñu dindi ko nan ngeen di dundee situation boobu ak lan moo waral ngeen jàpp ni saa su événement xewee ci réew mi rek borom dawalkatu oto yi kenn du leen wax yam leen fii ñiy dox ak seen tànk kenn du leen wax yam leen fii mais pourquoi yéen ñu leen di yemale. ba tax sax ñuy suspendre seen activité pour yow lan lañ ci jublu. waaw xam nga Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ni dafa nekk dëkk bu complexe parce que lu tax man dëkk bu complex la parce que amul amul joxuñu droit citoyen ñi ngi xam ne ñooy ne ci réew mi ku si bu ñu la joxoon li nga moom. ku ne jàpp li nga moom rek kon problème doo am. mais tey bu ñu yëngu si wàllum cek-cek à chaque fois bu procès amee rek ñu indexé livreur yi. ni bu leen xëy wala ñu indexé képp kuy dawal deux ñu bul xëy loolu yaakaar naa discrimination taxaw na. nit ki di sénégalais juddoo ci réew mi màggee fi jàng ba taxaw yi emploi am nga waroon ko ñëw jàppale jàppale woo ko nga waroon ko ñëw soutenir ko soutenir ko nga waroon ko ñëw téy sa loxoom ni ko yoon baa ngi ni defoo ko xaw ma di nga xëñ xëy loolu amul benn livreur wala képp kuy dawal dëru ku ko rafetlu décret bi ñoom bu ñu koy génnee ñu indexé livreur yi parce que dañu jàpp ne ñun ñooy taal bus yi wala dañu jàpp ne ñun ñooy agressé wala dañu jàpp ne ñun ñooy def yu affaire ñaaw mhm. wala dañu jàpp ne ñun bu Ousmane ko war a dem procès rek ñun ñoo koy accompagner di ko dimbale ci yooyu te ñun nekkuñu ci yooyu. Mhm. ñun dañu nekk ay ndaw gëm suñu bopp nekk ay ndaw jàng am suñu diplôme. si biir association des livres du Sénégal y a des diplômés yoo xam ne ay comptable la ñii ay ay ay gestionnaire lañu ñii ay apprenti juriste lañu. Mhm. ñi ñii ñii ay. mais tey loolu bu demee ba am war nañu mën a ñëw am beneen doxilin wala beneen taxawaay bu dul di ñu indexé di ñu segg segg boobu ñu ñu segg nag. ñu daf ñoo metti à chaque fois. te def nañu appel fan yëpp ci plateau télé yu ñu mës a jaar wax leen ni leen respecté leen ñu ngeen xam ni seen ay doom lañu yéen bi ngeen yéen seen i doom ak fi ngeen leen bëgg ñu yegg fa ñu fa la ñuy bëgg yegg. Mm-hmm. donte article un du code du travail day wax ni. Mm-hmm. bépp kuréel bu créer emploi wala entreprise. article bi day wax ni na yow gouvernement ba yow yow yow autorité ba na nga ñëw jàppale ñooñu ci liggéey boobu ñuy def loolu c'est écrit noir mm-hmm. di xaar. mais nit ñuy indexé à chaque fois métti nañu métti boo xam ne amuñu fu ñu koy jooyee lu dul ci plateau télé yu mel nii. Mm-hmm. mais ñoom danoo jàpp ni lu jëm ci seen wàllu circulation ni am ñenn ñi parce que boo gisee arrêté bu génnee dañuy naan ñenn ñi mën nañu am dérogation dañ naan ñi xëy pour di liggéey wala ñi nekk ci wàllu sécurité ñoo ñëpp mën nañu am dérogation parce que dañuy jàpp ni ñooñ seen yitte lañ ne. mais si seen biir dañoo jàpp ne am na ay bukki yi sàngoo deru béy maanaam ñoo xam ne yeneen intention lañu am mais aussi tey dañuy faciliter la circulation ci nit ñi. Mhm. ba xam ne cag-cag boo ko yoree def ko daw moo gën a yomb ngay daw ak say tànk. Mhm. est-ce que du loolu. bu nee cag-cag lan moo tax ñu naan cag-cag. Mhm. laaj bu ñu koy wax lan moo tax. mais rapidité moo tax ñu naan cag-cag. embouteillage bi am Dakar nit ki mooy ñëw fekk cag-cag bi taxaw mën ko yóbbu ma c'est une demande sociale. tey ñoom bu ñu bëggee index ci loolu kon ñoom ils ont parce que ñaata taximaan nga fay gis ñuy xeex seen biir ba nit rey si boppam ñaata bus nga fay gis ñu def choc rey combien de personnes ñun cag-cag yi bu ñu bokkee si réew mi yu mel ni am. non danoo gis ni bu leader bi di génn comme Sonko loolu constat général la ñi ñuy topp ci grand bi ay moto lañ yor. waaw mais mani defal ko caravane boo xam ne parce que moto yi. mooy mooy transport bu gën a gaaw bu gën a mobile. pour mën a dem. Mm-hmm. mais jënd sa moto am nga nit am na droit jënd motoom bëgg ci def leneen. nit am na droit jënd motom dem préfère pour dem agressé ji nit am na droit jënd leneen pour topp Ousmane Sonko mais nañ bu ñu yemalee ñëpp daf leen si benn sac ñun suñu lu ñu tax a jóg mooy jóg liggéey daan suñu doolee nekk ay livreur simple free comprendre nga. Mhm. tey bu ñu bëggee jàpp ne ñun à chaque fois bu Ousmane Sonko dee dem rek ñun ñoo koy topp loolu ñun si li ñu bokk ñoom loolu dañu dafa ñaaw quoi c'est-à-dire que nañ ñu jël mettre ñëpp si benn sac. Mhm. considération bi ñu jox taximaan yi jox ko car ñu jox considération boobu. parce que ñun loolu la ñuy xaar si ñun mais à chaque fois bu procès amee rek ñu ni livreurs yi dem leen ngeen toog seen kër mais livreur du ñoom ñooy taal taximan bi day gaari otom ànd ak nekk si ful bi di def nu ko neex kii dawal car rapide bi day gaare otom ànd ak Ousmane Sonko kii dawal bis bi am na ay partisans Ousmane Sonko yu dawal bis nekk Dakar dem digg di ànd ak Ousmane Sonko ñoom dañuy gaari seen bus ànd ak ñoom mais kan la mën a identifier si biir ful boobu ni kii cag-cag la wala kii bala da yor moteur mën nañu jàpp ne borom moto ñoo koy def alors que tel n'est pas le cas ni da ngay gis nit gaari otom jël def si essence ba mu fees dell dem vide def si bidon di xaar manifestation am parce que partisan Ousmane Sonko la mais ñun meluñu noonu buñ ñu dugal foofu ñun lu ñu tax a jóg mooy liggéey daan suñu doole hmm. bu ñu mënul jàppale ci loolu dañ ñoo bàyyi kat ak nii te ñu respecté ñu hmm. waaw man fi ma bëgg laaj sax maa ngi dégg mu naan euh, daal daf mel dañ leen a considéré wul comme niñ ko defee taximaan ak yeneen oto yi léegi ma bëggoon laaj ci bu dee ci doxeenu réew mi ban bànqaas wala ban loi wala boog lan ngeen amee ba tax ngeen di laaj ku leen considéré ba ba ñu bëgg war leen teg fenn parce que boo xoolee tey taximaan bi am na lu muy fay par am na ay droit yu muy fay am na ay papiers yu ñu koy laaj te bu dee cag ceg yi damay gis ni néew na bu lay romb am papier léegi yéen kon kan moo leen reconnaître ci réew mi ban loi wala kan moo leen reconnaître ba tax ngeen bëgg am ay àq ak yelleef ak droit yi taximaan yi am. xam nga am na benn arrêté bu génnoon 2012. Hmm. ñu ni képp ku deux mën nga daw ñu ni dans toutes les régions mais bu nee dans toutes les régions. Hmm. région de Dakar kenn génnewu ci kon si la bokk. mais dañuy dem ba si benn instant gis ni scooters yi ñu ngi commencé envoyé région de Dakar ñu bëgg ñu segg. te alors que arrêté boobu génnoon depuis 2012. Mm-hmm. arrêté bu mu wax. xam nga article article dafa ni képp ku man deux nga def transport ci région yi dans toutes les régions bu ñu waxoon particulièrement wala région de Dakar bokku ci. Mm-hmm. dans ce cas wax ni. waa Dakar bokkuñu si mais dañuy wax dans toutes les régions. dafa fàtte mais la particularité mooy Dakar mooy capitale. Dakar mooy capitale. bu nee région yi waxuñu capital bi. non si xam nga bu nee région yi. Mm-hmm. Dakar fa fait partie des régions du Sénégal. Dakar fait partie du région des régions Sénégal kon bu ñu nee région yi dañoo waroon indexé ni y compris wala Dakar ne fait pas partie dans ce cas kon danañ xam ne Dakar bokku ci mais dañu dem ba ci biir gis ni kat xale yi ñëpp jóge nañ ci région yi ñëw parce que fii livraison daf fi dox li ngay am course 200 300 di nga am ci région bi bu dee Dakar la 1000 francs 2000 1500 booy dañuy ñëw liggéey si parce li ñuy war a am dëgg-dëgg fee amuñu ko kon dañuy nag. ñoom ñi nga xam ne ñooy autorité contractante yi bokk ci xam affaire bi nu muy demee yor surtout ministère du transport ñoom ñoo ñu war a jël ëmbuñu ñu buñ ñu woowee di dinañ xam exactement ñun nan la ñu mën a mën a def ak ñoom liggéey liggéey bi mu jaar yoon tey li day laaj ñu réglementer secteur bi parce que c'est une demande sociale. Mm-hmm. bu ñu réglementer secteur bi dans ce cas mën a identifier kan mooy livreur ak kan mooy agresseur. parce que lépp loo gis seen métier bi ngeen def mooy journalisme am na ñoo xam dañ si nekk di saboté ah, di def di def naka suul noonu comprendre nga non si parce que lépp loo gis am na ñuy gàmm ak ñuy das mhm. dëpp loolu la ñu bëgg ñun lu ñu fay la ñu fay ah, commencé gu ñun dañu bëgg considération bi ñu jox taximaan bi ak droit yi ko war ak devoir yi mun ñu war ñu ñun bañu ñu fay dañuy wax ni nan ñu réglementé être ak égal réglementé c'est pas la même chose ñun on est en règle. en règle ci grise permis assurance. am ngeen mais na dañu war a instaurer ci secteur du transport c'est-à-dire que ñu légal bu ñu légalee li taximan li li warloo taximan bi. Mhm. mu warloo lu ñun ñuy fay vignette. Mhm. am suñu carte grise am assurance am droit de stationnement loolu la ñuy xaar si ñoom te boobu ba léegi. ñu ngi leen koy wax guddi droite keroog bu ñu demee conseil. da ngeen a forcé daal yéen léegi. ñun forcé wu ñu. non fi mu nekk nii moom moom moom légalu leen. non légalu ñu. voilà légalu ñu waaw léegi nag. même arrêté boobu sax foogoo balaa ngeen di kaas naan ay arrêté ay nangam nangam li naan boo amul wéeruwaay da ngay yomb ba max fi mu nekk nii yéen préfet lépp arrêté yeeg yëpp mënu leen ci dara xam nga lu tax. Mhm. parce que légalu leen problème bi mooy. est-ce que jotul ngeen organiser wu laaj seen statut ñu jox leen seen statut sa fait que bu ñu leen arrêté parce que taximaan sax ñu leen arrêté. taximaan moom lay neex pour sa propre sécurité mu dem gaare otoom mais tey jii cag-cag bu la préfet ne taxawal da ngay taxaw parce que nag tu n'es dans euh, tu n'es pas légal. Mm. léegi nag problème bi mooy yéen nan ngeen fas yéene def parce que balaa ngay kaas day fekk nga balaa ngay laaj say droit day fekk nga matale say devoir nan ngeen bëgg def. ñun lépp luy papier administratif dañ ko déposé ko au niveau. lii dépôt wu lan la. waaw de récépissé. asso association. des livres Sénégal. Ah. pour ñu reconnaître ñu au niveau national. yàgg na depuis deux mille fin bi Covid bi. Covid bi commencé jax si Sénégal di metti lool lañ ko téye ko actuellement suñu linéa la xaar mu génn au niveau du ministère de l' mm. kon xam nañu kon ñu ci yoon bi. Mm. ñu defar ay carte carte carte carte membre biométrique comme la carte d' identité mm-hmm. livreur bu ne tey dañ booy dugg ñu jël sa ñaari photocopie d'identité jël benn ma garde benn ma en tant président jël benn jox secrétaire général xam fi nga dëkk pour au cas où boo jëlee kolu jaamul yóbbu ko mu réer ñu mën la identifier am nga mën a fay kon ñun ñoo ngi ci yoon bi tey lu ñu bëgg ñun mooy li ñu nekk léegi loolu noonu bu fekkee da ngeen a ba pare mhm. ba tegu ci yoon bu boobaa di ngeen mën kaas droit léegi nag mu resté ñu mu def nan la ñuy assainir le milieu parce que li nga junj noonu à la fin mooy li metti nit ñi déjà ci tali bi nu leen neex la ñuy def da jox nit livreel ma mu sàcc ko ñu baal ma ci kàddu gi parce que dama gis ñu ko dund loolu yëpp nan ngeen def pour assainir votre milieu. waaw yow xam nga da nga ni dangay ngay jox colis livreur mu sàcc ko. si am ñun ñun. ñun ñi xam ne ñoo ne ci tali bi daw. Mm. ñun dañuy carte di ñu dóor. waaw loolu am na agressé dangu suñu moto. c'est vrai ñuy def loolu du ñu ay livreur te ñun ci milieu deux roues la ñu bokk dañuy nekk jël deux roues yëpp trois personnes fekk la ngay daw ñu nangu su mu agressé la yéen a am organisation hmm? nekk ci association nga indi ay carte indi ab récépissé hmm? mais tey bu dee seen biir dafa am ñoo xam ne dañuy sàcc alalu jàmbur yi ça veut dire que yéen ko war a lijjanti c'est vrai ñoo ko war a hmm. moo tax moo tax ñu lay identifier à chaque fois booy ñëw di dugg secrétaire général bi ak chargé euh, comment dire le régional Dakar ñoom la lay booleel ñu dem ba sa kër xam say parents xam fi nga dëkk ñu nga dafa am association bi nationale ngeen ko bëgg nationale la c'est au national on est ñaata membres 4300 au niveau national loolu c'est trop ay jeunes yoo xam ne ay diplômés ñu am métier ba pare amuñu leen moyens qu'il faut pour entreprendre seen métier ñu ngi ci biir ay rescapés prisonniers ñu récupérer leen dugg leen ci biir au niveau régional on est plus de 564 membres ici dans la région de Dakar okay. 56 coordinateurs au niveau des 19 communes de Dakar mais ñun tey lu ñu war a wax mooy ñoom ñu ñëw vers nous ñu assainir métier bi ñu loolu la ñu demande. ñu assainir ko dem nañ leen bind nañ leen ku dem ba conseil interministériel toog ak mu premier ministre Amadou Ba mu wax jël si dix neuf vingt yi. ñun ñu bokk ci disposition ñu ni kat à part deux jours képp ku dawal deux roues na nga am am assurance. kon kooku ñooñu xam nañu li ñu bëgg. jël nañu parole wax ak ñoom ni leen lii la bëgg ñoom ñoo si bëggul taxaw ñoom ñooy sawarde avant. parce que bi nekk ci réew mi nekk ay sénégalais ñoom ñu toog seen bureau yi nekk seen ginnaaw bi di bind di signé war nañu mën a boole bu ñu nee développement jeunesse moo tax ñu koy wax seen réew jeunesse bi bu ñu songee circulation bi nekk ci di daan seen doole ñoom seen wareef mooy ñu ñëw jàppale jeunesse bi dimbale leen taxawu leen mais li ñu bëgg mooy jeunesse bi di tumuranke jël géej gi di dee si gaal yi loolu nag day dakk xale yi fii la bëgg a toog tekki liggéey nga baal ma que tout yaa ngi wax ne euh, ñenn ñu bëri majorité bi daanaka mooy ñi nga xam ne dañoo jàng ba pare am seen i diplôme amuñu liggéey ñoo dañuy mujjee obligé dem jënd seen benn moto comme à Thiès man Thiès laa dëkk gis naa xale góor yu bëri jakarta yi ñu yor dañoo dañuy xëy toog defuñu dara dañuy mujjee obligé dem jënd moto bi pour di ci def ay ay ay ak ay livraison ak di transporter nit yeeg yooyu noonu léegi ñenn ñi nga xamante ne ni jotaguñu xam peut-être seen association bi nañ ajaratu mi ngi la koy wax léegi yéen yéenay fexe tamit nu ngeen organiser woo ba képp koo xamante ne nii tey seetaan na la très vite dina mën a ñëw joindre leen pour mën a bokk ci association bi parce que dangay ngay gis fii ay livreurs yu bëri bokkuñu ci association dañuy xëyal seen bopp wàccal seen bopp dem tëdd loolu aussi war ngeen see. xam nga ñun on a fait deux journées de sensibilisation avec l'aide du gouverneur ma koy nuyu au passage ak le préfet du Dakar ñu jox ñu autorisation ñu commencé rond point Sam ba euh, Guédiawaye naa Nimzatt plus de cent ah, livreurs ñi nekk Dakar ñoo ñëw ànd ak ñun ñu commencé midi ba dix neuf heures di sensibiliser sur le port du casque juste fermé tenue vestimentaire joxe suñu numéro de téléphone fu defar ay flyers livreur bu ñu romb jox la mais am na ñoo xam ni tey mën nañu bëreet maanaam mën nañu wax waaw damay bokk te alors que ñoom nekkal seen fu bopp moo leen arrangé bu ñu demee ba cappaandaw ga nag si ñu door comprendre ni ñii li ñu ma doon wax nekk da amoon na njëriñ ñ door a ñëw bëgg a dugg à chaque fois ñoo ngi fu ñu dem toog danañ joxe suñu numéro téléphone joxe suñu adresse suñu siège Médina la ne rue 39 angle 20 ku fa ñëw jël numéro téléphone 77 710 18 06 nga ñëw at ñu adhéré la laal la say photocopie d'identité ànd nga ànd coordinateur régional ak le secrétaire général ñu yem sa kër ak loo sori sori si Dakar dañu la topp ba sa kër xam foo dëkk. bu dee si région ay coordinateur lañ fa am. Ah, ñooñu coordinateur am fa ay yoo xam ne ñoo fa nekk boo wootee foofu dañu lay boole coordinateur dem ba sa kër. ànd ak yow ñu xam say parents xam fi nga dëkk identifier la. mooy ki ñëw pour adhérer. ku ñëw fi adhérer. Mhm. noonu noonu lañ lay adhérer nga nekk adhérent dugg ñu jàppale la. formé la comme temps bi dafa may ma daaneel rek. wala dimbale ñu formé la. boo demee stade euh, amitié mercredi chaque mercredi ak chaque lendi suñu benn agent mu ngi fa ngay ñëw ñu formé la quinze jours. Mhm. wax na nan ngay dawalee moto. nan ngay jàddee gauche nan ngay jàddee droite. waaw feu bi tàkkee nan nga war a taxaw communication boobu mais dafa am loo xam ne tamit nit ñi da koy dund ak yéen mu doon ay jafe mooy tali bi concurrence bi ngeen ci nekk ak euh, ñii di taximaan ak ñoom seen ba muy jur ay victimes yu bari te benn journal rek génnee na ni boo xoolee au niveau national deux roues yi mat na cinq cent mille te te benn non non journal bi rek laa laay évoqué peut-être yaa ma gën ñu mu wax ci nombre de décès yi wax ni bu ma juumul rek à Dakar deux cent trente-sept décès wala cinq cent kii accident maanaam def na benn xayma mu bari nag ci tool ñu bari tey am na sax ñu ko reprendre ci Euh, site internet yi. mais noonu tamit est-ce que dal leen ci war a bàyyi parce que tamit ni ngeen jàppee da dangeen liggéey waxuma sax ci affaire Ousmane Sonko génn naa foofu mais da ngeen nekk source d'insécurité benn ci côté tali bi mais benn tey ci seen jëmm yéen parce que ñiy faatu ci yéen bari na man amul mara day taali yi heure bu mu damay stressé heure bu muy jaar ci autoroute bi munoo romb te gisoo ku daw ba daanu soit ñu mbëkk ko wala moom mu mbëkkaate Omar waaw loolu lan moo ci taxawaay toutes les nguur gi da a bàyyi rek devant la loi mm-hmm. et nul n'a le droit de se faire justice par soi-même mm-hmm. loolu c'est écrit noir sur blanc du code euh, CCC comprendre nga tey ñun suñu wareef mooy képp kuy dawal deux ñu wax la nan ngay dawalee deux képp ku jël àllu jaam di ko yóbbu ñu wax la ne li ngay def baaxul ñu gém la formaté ba dindi la ci loolu accident yu bëri day yu bëri loolu c' est pas à notre niveau parce que tey li may wax li may ñëwaat si insécurité bi ngay wax. Hmm. ak ñàkk formalisation bi may bu mu bëgg. tey nit da day jël de deux jours rek ñëw dugg si métier bi xamul code de xamul nan lay dawee boo ñëwee fekk oto jaamul nga damm rétroviseur jaamul daw dem sa yoon wala nga fekk nit traverse nga yàkkam di daw fiir ko loolu la moo la problème bi xam nga lan la. Hmm. problème de formation bi la. Hmm. bu ñu la formé jàng la nan ngay dawalee moto wax la la may code de la route tàkkee da nga war a taxaw. comprendre nga boo dammee retour de vision fekk nga am nga assurance taxaw ñu def constat sa assurance. waaw mais ñi nga xamante ni aussi am na ci. comprendre nga mhm. nga. am na ci ñoo xamante ni aussi toujours ci brebis galeuses yi am na ci ñoo xamante ni aussi dañuy romb nit soit nga yor sa portable man bañ naa dem naa ba léegi psycholo c'est psychologique euh, chez moi damay rob bu ma déggee riirub cag-cag rek damay dégager carrément ci tali bi parce que gis naa ci ñoo xam ne taxaw nañ yor seen portable di seetaan match ñu këf ko am ñoo xamante ni dañu yor seen sachet ñu këf ko yóbbaale ko mais loolu yéen est-ce ngeen ci dara. loolu ñun mënu leen ci dara ah, am nga nit da ngay wax dëgg te yàlla tax. ku lil mm-hmm. xàq wala kaana mu ran mm-hmm. parce que man sama bàmmeel nag lay xalaat fu ma toog. adduna nee lépp loo gis am na ñuy raas jëf ak ñuy gàmm. c'est vrai boo gis nag muy chauffeur bi di mécanicien bi di soudeur bi ba ci journalisme bi ngeen def. Mm-hmm. ñun cag-cag la ñuy def bu ñu xëyee sol suñu la ko sol suñu équipement toog xaar appel yi ñu daw dawi course yi sàcc ñu fenn ñu daan suñu dool moo ñu tax a jóg képp ku ñu bëgg index de valeur wala d'agresseur yaa ngi ñuy tooñ te yaa ngi bakkaaru. mais est-ce que war a bàyyi nii parce que tamit ñu jël capital bu doy na Dakar euh, def ko jakartis jakartiser ko ci da capital daa am nu mu war a mel surtout ak image am ak tourisme yu fi war a ñëw mais ñu dem ba angle boo luy gis fa téeméeri jakarta ñu taxaw ci image yu capital même bu ko kilifa yi nangoo gëm naa ne bis dina ñëw. ñu jéem a lijjanti loolu parce que capital warul doxe comme ni Dakar di doxee ni actuellement parce que ñun 10 ans ci ginnaaw lan daan gis ci télé yi waga mel noonu mais tey jii est ni leen war a bàyyi ndakaaru mu mel ko. ma ni hmm. buñ ko assainiré loolu day dañ ci dëkk bi. ba léegi léegi xoolal da ngay gis sax ñi jóge bitim réew réew yu ñu dendal fii ñoom ñëpp ñi ngi ñëw mani waaw xam naa nekk ci région yi mais loolu baaxul ci Dakar balaa ñu wax si Jakarta yi nañu wax dëkk bi ñaata étranger ñoo bokkul dëkk bi comme ah, mais foo demee fekk fa ay sénégalais yu wax ko ay sénégalais mais tey mel ak étranger mel ko si si si beneen xeetu métier bu ñu inde si jakarta yi kasi ñoo koy def bu ñu assainir métier bi arrêt yooyu di am si différents quartiers wala si différents rond point yi loolu day dañ mais loolu rafetul non xaaral mais nag da ngeen war a xam ne ni dakaar kase dum réew boo demee Mali nga dem Burkina Faso nga dem Nigéria li am Dakar moo fa am te ñooñu dañuy jël seen ay jeunes protéger leen identifier leen ba ku si ne xam fan nga war a jaar ak fan war nga taxaw. ñun li ñu bëgg mooy nañu wax. ça ah, koy baax na que ni ñëpp comme ñeneen a ngi koy def waaw mais ñun waxuñu baax na. ñun dañuy wax ni jakartaay man li ma te li ma gën a naqari ci yéen fu ne ngeen di fële man ni gauche droite réew réew non bu waxee du mën a tontu man dama ni la <laughs> tey jakartaay ni ñuy taxawee mm. ak la manière dont il stagne loolu neexul kenn mais ñun lu ñu bëgg mooy loolu ñu nekk ñoonu autorités yi dugal seen loxo ñu mën leen segg ku si nekk toog sa kër wala ku si nekk toog sa buntu kër bu ñu la wooyee nga dem def sa livraison wala nit bu la soxlaa nga taal sa moto dem ba këram jëli ko yóbbu ko. mais ça demande seulement un assainissement. mais Fall foofu nga xam ne man fa laa bëggoon ñëw muy euh, livreur la war a doon man pour man dem livrer ji ay bagages. Mhm. léegi su fekkee nag taximan bi day ñëw droite day fay ay droit yi muy fay bu droite ceg-ceg bu ñëw taxaw su taxi bi naree yóbbee 3000 nga ne ko fay ma 1500 ma yóbbu la wala 1000 francs nga ma yóbbu la xam nga loolu itamit neexul ci koo xam dafay fay. waaw waaw te itam xam nga loolu est-ce que beneen bi mooy comme temps baa ngi dem dama ko ci bëgg a dugalaale fan yi dama gis ay nit yoo xam ni wax dëgg yàlla seen image rafetul sàcc alalu jàmbur la ñu leen xamee woon def yi fu bandi tux yàmba ba seen image yàqu gis nañ leen fan yi ñu naan dañ leen may ay jakarta yu bari pour ñuy kii reconversion am na nag reconversion non ma ñëw fi ma ak si léegi dama loolaa bëgg xam ma léegi est seen association bi dafay dem fekk ñooñu dugal leen ci wala est-ce que dafay def su boobaa bu ngeen amee récépissé wala na li ngeen bëgg seen nene yaa ba jox leen seen récépissé mhm. ndax da ngeen di taxaw ni képp ku bokkul ci association bi euh, waratu nekk livreur wala loolu la ñu bëgg ah dañu bëgg secteur du transport cak-cak wala livraison mhm. ñu jox ñu service boobu ñu gérer parce que ñoo ko maîtriser ñoo xam lan la bu ñu ko joxee ñu danañ mën a identifier kan ak kan la beneen mooy Amadou Sall le fils du président moom mooy jënd ay mbër di ko jox ay mbër Ah ab mbër lan lay doyee ab mbër lan lay doyee cek-cek mbër buñ ko buñ koy bu ñu waxee mbër sa xel ci lan lay dem arène nationale tey boo fekkee saaku ceeb bu fees nga bëgg a teppi saaku bëgg a sotiwaat ceeb day tuur ah, ah doom président mooy joxe moto yi booy dimbale da ngay dimbale ñi yeeyoo moto yi ñun association des secteurs du Sénégal ñun ñoo maîtriser moto yi xam luy moto bu ñu bu koy joxee te yàlla rek a tax mu tax mu koy def hmm. wala bëgg a jàppale jeunesse bi na jënd moto jox ko association des livres secteurs du Sénégal ñu jox ko dañ leen agressé nangu seen seen moto dafa kuule amatuñu moyen pour jëndaat moto mais ñoo ñoo mérité moto amul président amul dara leen kayit nan mais ku ni yéen amagu leen kayit légal agu leen am nañu am na la déposé nañu suñu kayit ba jox ñu récépissé dépôt suñu INEA la xaar mu génn waaw d'accord gis naa comprendre nga mais tey dama loolu dafa ñaaw si mënoo nekk yow autorité boo xam ne ñëpp la xam wala nga doon doomu président nit ñi yaakaar ci yow am ci yow cofeel mais tey booy dimbale dimbaleel ñi ko ñi ñi yow yow loolu. ci jeunesse bi lañ bokk quand même ñoom dañoo am. ay non non non non xam nga xam nga ku ci nekk xam nga mënoo nekk journal mënoo nekk journaliste. question bi nga posé naan da ngay jaay jën. Aliou Aliou Balma mënul nekk mënoo nekk journaliste naan da ngay jaay jën. ah non non yow mënoo nekk mënoo nekk commerçant jën bi dañ ko moderniser ay. ah non non non non man non non xoolal il faut laisser à César ce qui appartient à César. non non rien n'appartient à personne fii. voilà fii fu nekk loo gis sa bopp rek war nga ko mën a liggéey. nekk journaliste am nañ d'autres métiers parallèle mais mais sa man fu ma ànd ak Aliou xaw mooy fan maanaam xam nga tey kilifa yi ñoom ñooy jël ay arrêté mm. bu dara xewee na leen bu leen daw parce que danoo gis ci ñoom source de violence lan source mm-hmm. ñoo ñu wax loolu après ñoom ñooy dem jëndi ay jakarta dem jox ko ay bandi ah moom laay wax c'est-à-dire que loolu c'est paradoxal ci ñoom. maanaam milieu bi ñu jàpp ni setul ba pare ñoom ñuy gën ko di ko tilimal. di fay investir waaw. waaw kon pourquoi ñu fay investir ba pare te bu manifestation amee. ñoom ñu aye ko man. c'est paradoxal de. Ah, c'est un peu paradoxal léegi la. yaa ngi ngeen ci communiqué naqarlu ko est-ce que def ngeen ci communiqué naqarlu ko. non démb rek. démb rek daf naan bu ñu def suñu ndogu. Ah, lan ngeen bëgg lan ngeen bëgg. yéen autorité yi def ko waaw. mooy en tant que président national des livreurs son excellence monsieur Sénégal moom moo ñu recevoir pale ñu ni ko président ñun say doom lañu bët yi ngay xoolee Amadou Sall xoole ñu bët yooyu loolu lañ ko wax mu jël parole nit ñu dinaa leen dimbali may leen ay mutation gratuite dinaa leen dimbali may leen ay équipement yoo xam boo leen ko solee même boo leen defee accident doo leen gaañu loolu nag jusqu'à présent ñoo ngi xaar amagul ñu ni ko dañu bëgg nga wàññil ñu prix carte grise yi ak permis yi nga subventionné lañu ko mu ni moom carte grise ak yi du Sénégal ko moom mais ñi ko moom dana wax ak ñoom ñu dimbali ñu bu ñu ko doon jaayee cent mille francs ñu defal ñu ko cinquante à soixante mille francs loolu nag avant les élections législatives la woon bi ñuy dem population bi yëpp nee na yéen ngi dem mais dañ leen di politiser ñu bañ ni loolu amul mais tey la population a eu raison sur nous. d'accord kon donc nañu dimbale loolu moo xam am. fils du mm-hmm. président Macky Sall Amadou Sall na ma dégg mu xam li may wax ni li ma gëm la ñun Sénégal ay Sénégal lañ ku ñu jàppale. Mm-hmm. ñu jàppale la xam bëri na ay jeunes yu si nekk di daan seen doole te gëm seen bopp tax ñu koy def bañ a sàcc bañ a tàllu bañ a kemande ku ñu sàggane rek ñu sàggane la ñun foofu la ñuy toll actuellement nii. dem nekk duñu fii di. ay ah, naan léegi rokki ma rokki la daal. ñun ay jeunes lañu. yéen xool leen interview mi kon daal na leen Amadou Sall jàppale ngeen jàppale ko. Amadou Sall réew moto yi muy jël loo tax mu ko jox. yan mbër ah, maa ngi dégg ñu ni daf ko jox. yaa ngi dégg. Zarko la jox ay moto ak Ada Fass. est-ce que moo jox joxe kan kan moo ko jox. xaw ma kan moo ko jox Siteu moom jël na ay mot est-ce que Dora joxu ko. Dora Gueye joxu ko non si man man j'ai eu des informations tant non man non j'ai pas peur j'ai de ça. j'ai pas ah. de ça li ma bëgg mooy dama gëm ni jeune la dëkk ci réew mi ànd ak samay mbokku jeunesse ñuy liggéey bëgg dëkk bi avancé ñoom nañu ñëw jàppale ñu te yàlla tax nañ ñëw jàppale ñu quoi dañu sonn. d'accord Omar jërëjëf <laughs> Aliou la kii nu mu tudd ak ak euh, càq càq ah. bi di la gërëm nag ah. ma def benn oh, oh, benn oh, message 30 secondes s'il vous plaît. yi nga càq càq bi billahi wallahi dara tardé du Sénégal yéen ñi xam ngeen si dara nit day jógee Tëngéej war a ñëw liggéey ci yi mu gis embouteillage jël moto ñëw nit day jógee euh, Kirikoro fàtte dara man un jour benn ministre fàtte na passation de service. almadi ma dem jëli ko yóbbu ko jam ñaajo vite fait keroog bu waroon a cek cek loolu oto mënu ko. kon leen ko joxee taximaan a a gaaw dama bëgg bu <laughs> ñu niyee loolu dama bëgg ñu xam li ngay wax si xoolal ñun mën nañu mën nañu arrêté di taxaw ci rond point yi mën na nekk mën nañu toog suñu budd ko rek suñu moto mhm. yow nga soxla ma woo ma ni ma kaa yóbbu ma ma yóbbu la kaa jël ma léegi xoolal mën nañ ko man mii bu ñu ko tegoon sama nga ministre de la jeunesse bii billaahi wallaahi maa ko ëpp compétence eh. barki yonent bi yàlla Muhammad nii eh, ma nii maa leen ëpp xam-xam parce que dama jàpp ni lii bu ñu ko tegoon jeunesse bu ñu ko tegoon sama loxo jeunesse bi yëpp dinañ kontaan yaa ngi jël loo moomul non non dama xam ne ñii amuñu compétence quoi merci beaucoup jërëjëf Aliou jaajëf waaw euh, toogal ba publicité <laughs> di lii ñu koy gërëm baax di ko sant ah démb ci guddi laa ko di gërëm baax Serigne Gueye moo ñu boole di ko jaajëfal baax Serigne moom day bàyyi xel ci talk show quoi parce que invité moom chaque jour yombul mais bu dee am na ñu ci jàpp pour invité du yomb ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant sorti la ak def ci di la ñaanal jàmm di la ñaanal suñu borom muccal la musal la ci fitna yi nekk ci tali bi Seydina Aliou Fall ah, mu ngi noonu ñu koy remercier a baax